asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 29 octobre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yeeti sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko kaay ba tey xëyee xëyati dikkati ci wàllum MMA ba dinu xamal ne daal maanaam kii di Bombardier Siteu ba ci rëg-rëg daal ba ci Rocky Balboa yëglikaay bi na daal boo xoolee daal est-ce que la ñuy gañe ca MMA ba ndax tax na koo bari yëglikaay ba nag tey moo xëy topp loolu gëstul ñu ko nee na bu fekkee da ngay door a commencé maanaam débutant bi moom nee na dina gañe lu toll ci six millions cinq cent mille francs CFA loolu yëglikaay ba ñëw na ca ñëw na tamit ca wàllum taxi ya ak salaire la nga xam ne ni daal maanaam moom moo di entraîneur mu mel ni ki nag mbir mooma moom boo koy xool ci wàllum bëri taxu ko koo def lool lool sunu làmb ba tey moo xëy dikkati ci lu mel noonu ku mel ni ki nag xawaan ma ngeen xam di doomu Espagne te jotu na ñëw fii Sénégal daan fi bëri ci bëri door bi moom xawaan nag léegi mu nga ca MMA ba xawaan daal ñëw na di wax Bombardier erreur ya mu def ba maanaam la ko dal dal ko moo ki nga xam ne mooy mujj jongante combat boo xam ne moom dinañ ko jongante dimanche ca Thiès diggante ka nga xam ne moom moo di Ousmane Gandigal ak Alaaji Gaynde Safi Dieng nag xëy na di ko jàngat ne na daal combat la boo xam ne daal bu doya doy waar la combat la boo xam ne daal bu jara bàyyi xel la loolu moom noonu la ko daal jàppe wala daal gis-gis booba la ca am mu mel ni que nag ca tuus ya daal Thiès ah dañoo xaw a ragal ka nga xam ne daal moom moo di Ousmane Gandigal du samay wax nag yëglikaay ba moo ko xëy tey di ko wax kii moom ragalul ba xëy na génn ne fàng ne daj jëkkatu yëglikaay ba muy Lamine Faye ñu gën koo xam ci lamin Golo moom nag moom mooy entraîneur école de lutte Balla Gaye ginnaaw ba mbërëm ma di fils de Balla daanee général Malick Lamine daal la mu xëy xam ne moom lamin Golo lenn la ne na samay soxla wala sunu yitte wala yitte fils de Balla école ba yépp moo di Franc Franc daal moom loo wala fu mu aw Fils de Balla dina ko dogale ndax nag sunu combat ak moom fi mu nekk nii ñor na xom xomm xom te lu ñor tàbbi nag day gën fuuf lu nga sam indi loolu du sama ay wax waxi Lamine Golo la kenn koo xam ne xëy na wax ndax combat am ñor na ba ñu taxawal ko muy Zarko digganteem ak mbay guy gi moo tax nag Zarko nee na mbay guy gi day jàppal lii ma lay wax bés bu arbitre génne sunu diggante seex sifle ga yàppi ne na ko bu keroogee moom da waqet di nga ko def wala boo ko defulee moom loola dal jàppal ne tamit ka nga xam ne daal moom moo di Zarko moo xëy tey wax ko mbay guy gi keneen koo xam ne ni ci tuuti yëgle kaay bi maanaam nu ngi lay xamal ne daal maanaam daa mel ni fa nga xam ne daal mooy ca COP COP 8 ba daal ba nga xam ne ni daal wàllum Afrique ko seq mu yëngu ci wàllum tàggat yaram ak yu mel ni ki noonu ay kilifteef Matar Ba daa mel ni daal dañ koo joxaat lam ca yoroon mu mel ni ki nag Tafa Gueye moom deuxième tigre de face ba mbir mooma neex na ko te itam daa jàpp ne nekkul lu ko bet ndax nag Matar Ba moom ku ne xam na am taxawaayam ak liggéeyam moom nag mooy ministre des sports bu Sénégal Assane Ndiaye moom ca tuuse ba tey yëglekaay ba mu ngi xëy di ñu xam ne daal boo bëggee dégg dëgg daal Iba Mar Diop daal bu amee roi du kenn ku dul ka nga xam ne moo di Assane Ndiaye ndax la mu fa def dimanche ji nu génn moom rëy na ba yegg ci lool moo tax nag amateur daal kontaan nañu ci moom yëglekaay ba nag moo ko tudde roi wu Mar Diop moom Assane Ndiaye bu nu fa jógee dem fa nga xam ne daal moo di la fa nga xam ne moo di euh, record record tamit la mu xëy dikkal ñu ci moo di mbay guy gi Masar Kodor doon waxal léegi mbay guy gi daal maanaam digganteem ak Zarko yëgle kaay ne daal daa mel ni seen jàkkaarloo bu njëkk daal kera maanaam parce que ay coup jóg na mel ni ki ñaari mbër yi la xam ne daal maanaam soxlante def nañ ko ba yegg ca lool yëglikaay bi moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ñaar ñoo xam ne moom danoo soxlante ba yegg ca lool muy Ada fas ak dafa Mbeur Fallou Ndiaye jox leen ku ne avance mu mel ni ki nag dimanche ji nu jëm daal di ginnaaw suba la ñu fas yéene jàkkaarloo fa nga xam ne moo di ca arène nationale ka nga xam ne nag moom moo di dafa mbër wala ba nga ka nga xam ne moom moo di Ada Fass ñoom ñaar ñëpp daal ku ci ne wax nga waaye Ada Fass wala wala ka nga xam ne moo dafa mbër daal mu nga xëy daal di wax ne na daal li am ba des daal moom arène nationale ba lu mu ci mën a xew daal moom na la nekk ci boppam ne na du lenn lu dul arbitre tuufle mu daan ka nga xam ne moo di Ada Fass daal di ñibbi Parcelles Assainies mu mel ni que nag combat boobu fi mu nekk nii daal li olof naan lu def waxu lu ay di njàmbat waaye daa mel ni fi mu nekk nii daal moom moom la ñëpp di waxtaane diggante Ada Fass Tapha Mbeur mu nekk combat boo xam ne combat xale la waaye ka nga xam ne tamit moom moo di Mor Kankang ak Boy Yëmbal bés boobu tamit dañ cay bëre kon de ku yebu waaj rek te xam ne ki daal bu bëggee dëgg-dëgg dimanche moom incha allahu rabbi arène national nar naa neex nar naa yëngutu